imaginel ñu defoon ko ku mel ne man problème bu rëy day am. Hmm. oui dama lay indil Guita Ngaas ah. waaw ah. Guita Ngaas mais dal gi ñu dal. Guita Ngaas. waaw ak yow. ba ma fekk jógo wala yow ñu teg la benn palaas pour sama xol sedd. man mi bokkul ak moom dara daf ma lebal loolu. Hmm. boobu ba léegi su ma tëddee sax damay dinaa si xalaat tuuti. pourquoi daal Aziz ñu war ko fekk. ci këram. xoola mm-hmm. Aziz ray bu garaaw lañ ko ray dañ ko fekk biir këram. Mm-hmm. gendarmerie am police am ci réew mi droit am ci réew mi président am ci réew mi lii du temps mu buur siin mm-hmm. comprendre mu am ay frère am ay mbokk am ay soppe mu leer ni ñooñu bu taxawoon duñ ko ko def ñooñu ne ko force dañ lay génnee àdduna nga dem alaaxira tey voilà mm-hmm. rey bu metti la kon ku munta wax ci rey bu metti biñ ko rey mm-hmm. Abdou Khoudia mm-hmm. danga ñoo war a baal te nga tàllal ba caaka njaay bàyyi wax ju ñaaw mais ñëw fii di ñu xamal ay lii laa soxlawuñu information boobu gis nga information bu nit di joxe man ak sama keneen ak keneen soxlawuñ boobu xam nga soxla justice mu génn nañu lii la c'est fii nag seen àtte xam nga lu tax souvent muy yàgg Abdou Khoudia yéenay euh, euh, tay boo demee police li ngay wax police ak li ngay wax ci enquêteurs yi. ak li ngay wax si pro si kanamu procureur. Mhm. mun na bañ a nekk benn. te boo ko waxee si kanamu procureur. Mhm. munul lu dul renvoyer. parce que fekkeewu ko kuñ tooñ ak ku tooñ lañ indi te moom fekkeewu ko. Mhm. moo tax dossiers yu bëri day yàgg mais bu ñu nekkoon ay jullit. dossiers yi du yàgg. d' accord mais comprendre d' accord mais mais mais Jimbori Sénégal yëpp xam nañ nit bi ko àtteewul. mënul am liberté provisoire. naam frère bi nga xamante ni moo moo moo moo demoon seeti ko. toog wal fajiri ne di confirmer ni loolu noonu am na mais da nga ko bañal yow bañ jaaxal nga ci am. xam nga man damaa jàpp ni kooku day taaxuraan rek moom buñ ko rayeloon. gis nga li ma gis waa Aziz def ko. ñiñ ci tudd bu doon Aziz a leen ko def. Mm-hmm. Aziz ngelaw du ko ëpp ay yaxam. Mm-hmm. waaw. dëgg parce que nga gis lu weex ba pare lànk ni daa ñuul. Mm-hmm. pour man. ah wax dëgg yàlla naa fekk mënu koo weesu. dëgg yàlla dëgg dëgg la quoi dëgg du doon fen ba mukk. maanaam la ñun ñëpp dañoo war a sant yàlla xam nga ban sant yàlla. fexe bi yàlla fexe ba dëgg dëgg. du doon fen ba mukk fen du doon dëgg mukk. fen rek lay doon lu dëgg yooyu nag ku mu neex nga def ko parce que tamit lafañ borom mi mbaam lay faral dëgg la parce que buñ nee bërët mm-hmm. mu yabaale lu mm-hmm. dëgg mm-hmm. waaw am nga ci droit mais dafa am loo xam ni euh, bu xewee bu ko teg ci mbokkoo da nga koy teg ci lislaam teg ko aussi ci dëgg noo teg ko ci lislaam rek boo ko tegee ci lislaam xanaa ak gëm yàlla rek nga ni lii moo xew wante parce tey ma wax la benn affaire. Mm-hmm. lu xam ni nag dama ko dégg. Mm-hmm. xam nga lu tax Lat Joor bi mu dawee dugg Saalum. Mm-hmm. Tamsir ma ba jaxu ba nëbb ko. xam nga lu tax mu nëbb ko. mu ànd ak moom. nee nañ maa ba dafa am dafa mos a am problème mu rey nit. ñu doon laaj xaalis pour leel xaalis. xam nga temps boobu. Mhm. dañuy dañ naan dañuy joxe temps mbokki ñale dañ naan da ñuy jox temps. Mhm. ñu bàyyi ko mhm. wala joxu leen ñu ko ñu ray ko. ñuy joxe yaayu Lat Joor dugalaale ci xaalis euh, sërëm. sëru dënkam xaw ma xaalis. loolu la ko jàppee nag mu mu mu mu ñëw mu fat ko. dégg naa la. ñu ni <laughs> d'accord d'accord jubóor yi. Ah. loolu am na solo bu baax nee naa la. Mm. Euh, kaaw Aziz comme ni nga ko waxee fu mu toll ak yow. non bii di ñëw sax dañ ci laalaat leneen. ci ah leneen. am na leneen. te bii ñëw t-shirt bi day ñëwaale incha allah. t-shirt bi tamit day ñëw yow tamit da nga ciy am. jeex na bii di ñëw kay man ak yow yëpp. mais da si ciy comme Aziz bu rouge la dem. waaw. gisoo mbaxane bu rouge bi. Hmm. moo tax fan yi moom nga may gis ma porté ko. Hmm. parce que xeexu Aziz bi du ne la dama ko porté de. Hmm. mais porté naa ko. bii di ñëw. Mhm. yow da sol bu rouge mais comme bu bu waali bi lay mel. d'accord man ma sol bu. ñuul bi. wala nga sol bu ñuul. Mhm. ma sol bu rouge bi. Mhm. si émission bi. d'accord wax nañ téléspectateur émission bi yëpp nag. mercredi incha allah dañoo bëgg ngeen ñëw jënd ci t-shirt yi. t-shirt yooyu. après am na luñ ciy def. d'accord loolu la quoi waaw waaw. d'accord Djimbori loolu kon je que ni sénégalais yi dégg nañ la ñu lay seetaan di la hmm. topp souvent aussi euh, dinañ kontaan ci loolu. Hmm. donc buñ jógee foofu nag euh, dañuy dem ci ki nga xamante ni moom mooy ndéegéey. Hmm. moom sa xarit la. yaa ngi bokk fi nga xamante mooy plateau. plateau topp kaa donc ñu dégg ay rumeur que ni dafa divorcé. mun nañoo toog te duñ la ci laaj. yan leeral nga ñu ci mën a àndil parce que ku la xam-xam ne ndéegéey. sa xarit la. xam nga Ndeye Gueye lan laa la ciy wax. Euh, euh, réseaux sociaux xam nga ko. Hmm. Hmm? Ah. bu doon diine la. bu doon mooy diine. sëyu Ndeye Gueye ak papa booy jinne daganatu. tas na tas na. Hmm. ñaata yoon lañ ko tas ñoom. mais sant yàlla bi réseaux sociaux nekkul diine. Mm-hmm. mais bu doon diine la. Mm-hmm. sëy bi mënatu la ne. Ndeye Gueye ma nga këram di sëy ñoom ñoo ko tas ñoom ñooñu nag di toog ci plateau yi di def émission di yërëm tëlu naan Ndeye Gueye lii papa boo ji ne lii ñoom defe naa ñoom ñoo nopp Ndeye Gueye te Ndeye Gueye may nañ ko papa ba pare. kon li ñu toj ci plateau ku nekk di ci jaay xam-xam. ci wax Ndeye Gueye mi ngi biir këram. billaay wallaay ñoom ñooñu sax. lañ war a xool ba xam amuñu problème ak seen jabar yi parce que gis naa leen ñuy lekk ci may gay <laughs> waaw. billaay wallaay gis naa leen ci may gay de. Mhm. waaw. lan moo tax buñ jegee toog ba ci yàgg ñu andiwaat loolu. divorce Ndeye Gueye Papa Boy man kay xam nga lan laa bëggoon nga laaj ma waaw nga ni ma lan moo tax buñ déggee teel rek ni matt gi damm na. Ah. waa làmb. Mhm. ëppal. ñenn ñii chronique ci làmb comme bëyu ndëpp. Mhm. man ni ma jàppee Ndeye Gueye ak papa booy jinne mm-hmm. Ndeye Gueye ñu ko papa booy jinne de xamoo loolu. Mm. yaxi Ndeye yi lañ may papa booy jinne ñoom nag turu Ndeye lañ téye. ba tey waaw. di yaali yaali mel ni jinjooru koor. Mm-hmm. Ah. bi loolu amee xanaa déggante ngeen waxtaan ngeen ci. no xam nga man daal. waaw léegi moom sa waay la. waaw sama waay la. boo toogee naan divorcé na divorcé waaw topp kaa maak moom ñoo ko fi njëkk a def. dëgg la de. dëgg yàlla ak mhm. Aline. Mhm. Aline si ñu ngi koy nuyu. Mhm. mais li ma dund ak li ma dund ak xam ko ci. ak li ma fréquenté papa booy jinne ah. du du du yii. Ah. ñoom déggoo ma ma ne la ñoom ñoo nopp ndey ñoom. Mm-hmm. du noonu. dëgg la. oui. Mm-hmm. waaw. mais. Mm-hmm. réseaux sociaux du diine. mais bu doon sariya. ndéegee tas na bu yàgg. <laughs> ndéegee tas na parce que boo tasee ñetti yoon ñeent. waaw do dootu leen mën a àndaat te baara sëw ko. ñoom nag dañoo bëgg a tas ko ci réseaux sociaux. baara sëw ko pour jëlaale xale bi. loolu lañ bëgg de. jëlaale ndéegi ay caga <laughs> d'accord. tasul daara néew ji. pour mu leer moo ma séenee ñenn ñi ñu toog si kii yi quoi. ñoom bu ñu waxee day mel ni day gay. déggoo ma ñoom dañu si war a xoolaale pour moytu leen. gisoo làmb. Mhm. organisation bi làmb war a am est-ce que xam nga làmb sax mënu ko organiser ñoom muusuñu pour organiser ko xam nga mooy lan. mooy barki démb bi ñu joxee Modou Lo meilleur léegi